ñu ne ko déggandoor nu ma leen ko waxee waagaan fay la wax la tudda oncle waagaan yéen xam ngeen séeréer di ñamewuñ koor waaye mu ne ñoom mun nañ see dem oncle waagaan dañ ñëwoon di waxtaanee daaxum koor ñu bëggoon a xam yow naka nga dee daaxee koor well uh, dañoo just continuer li ñoo def rek foog naa the idea is more about discipline nekkut ne comme you know uh, da ngaa war a change sa life ba nga xam ne well change for the better of course but you know uh, gis nga ñu ñu ngi si studio bi lii liggéey la so ñun uh, liggéey lañ ko jàppee just as ñeneen ñi tamit dañoo eewu suba jóg dem liggéey ñun tam lii liggéey la rek so ñu ngi amoon job buñ doon def with um, Activists and uh, UNFPA about peace building in the Gambia and uh, youth and women uh, empowerment and encouragement of youth and uh, women in Yefi peace building and nation building. So um, that's why we were just working on that project so uh, record nañ way bi pare as you saw and um, fi mu nekk we're gonna start working on the video maybe video bi moom dañ nañ ko door after weeri koor bi because uh, next week la julli moom bu soobee yàlla xam naa ne boobu pël yaa ngi yaakamti julli bi moom gars yi mun a añ mu ngi may njëkkalantu mu ne pël yi ñu ngi koy yàkkamti fekk euh, séeréer yi ñoo ko gën a yàkkamti dégg ngeen taf tax mu ne julli baa ngee ñëw si ah. ma gis ko tey mu mu kontaan woy bi dugga ko ba mu yëngatoo mu nekk li nga xamante ne dafay jaaxal ñu bari nañ wax ne weeri koor ndax ñu bëri nañ wax weeri koor bi nga xamante ne dañ koy sellal ñu bëri di ci bàyyi seen liggéey ñu bëri di ci soppeeku def si li nga xamante ne ba yu bëri yuñ daan def ko dañ si doon génn ma gis da tey nga nekk si studio bi nekk ak different artistes ak different nits yëf yi dugal la ba nga mun a yëngatoon everything nu mu mun a defee waaw like I said, uh, okay, you always try to discipline sa boppa si not only weeri koor but weeri koor tamit dina gën a tax nga gën a yokk sa doole tamit waaye tamit terewut ñun am nga man ku mel ni man music mooy suma full time job aw ma beneen liggéey obviously uh, programmes ak yooyu dinañ ko dee stop si weeri koor waaye terewut yeneen liggéey yi si biir music bi di nga ko def tamit still you know nii la ñoo suturayee suñ boppa nii lañ dee mun a dundalee suñ boppa you know soo liggéey laa ko xoolee rek nekkut anything uh, waaye tamit liggéey boo xam ne neex na ma si suma xol te neex na si xol am nga uh, xolay gisee moom waaw soo am na yeena yi su duggee si biir xol gi rek waaw yaram bi du ko mun a muñ sax foog nga yëngu tuuti waaye tamit di nga di nga teey daal di nga seet nooy defee sa boppa teey Iya. fay dem ak tey ñu bëggoon ñu wax ñu rek yow loo dee dogee sa koor ah mbor mbor usually mbor mbor ak ah, tandarma dena leka malo, waaw and uh, ah, waaw maybe taxi some sauce depending on lan la suma gaay wow. waaw séeréer yi fan ñu ngi génn yoon de séeréer yi nga xamante xamuñ woon dara lu dul cere ah cere bu tànga non waaye nag cere moom du ma koy right now sa maa ngi am cere suma fridge bi waaw cere bi moom léegi-léegi sa gars yi defar soos fan yi suma jabar dafa toog a daa boo xam ne <laughs> ci daaw domoda boobu lekk naa ko ay foog naa ñetti fan xaw ma ñeneenti fan sax domoda bu jaar yoon waaye always dañ ko dee boole tuuti maalo ak tuuti cere cere bi moom moom waaw suma doom yi nag ñu bugg a cere lañ démba suma suma booy bi sa eh, jóg na xaaji guddi ne cere la bëgg so cere bi moom moom waaw duñ koy bàyyi gannaaw. gis ngeen lu ma leen lay wax si lekka bi dégg nga ma nu mu ko waxee rek nu mu ko kébetoo jaarale ko di di di di defaraat yëf yi ah léegi rek ñu bëgg a wax ne yow doomu daabo si weer ko depuis dooree yow daal doomu daabo mu nga lekk mu nekk lekk bi nga ne yëngal na la daal. non daa bi moom moom moom wax dëgg neex yàlla ah, moo tax ma ne la dañ daan togg yeneen sax ma ne leen déedéet doomu daa bi génneewaat leen ko tàngalaat leen ko. waaw euh, dama dee travailler tamit pour euh, euh, famille pour mun a wàññi yenn wastage I think ne on a normal circumstance dañ dee tooga tooga yu bëri so dama dee always try tamit comme li desoon démba you know ñu try lekka ko ba loolu jeex pour ñu door toogaat o defaraat yeneen US because tamit daf dee end up lekka bu bari des si fridge ya freezer yi yenn yi doo ko lekka ba end up di yaaxu doo ko mun a mayee not ne doo ko mun a maye sax waaye you know so I'd rather man ma lekkaat ko rek waaw su ma ndesit la you know mun naa koo lekaat rek waaw so waaw te domodaa bi moom like I said jaaroon na yoon torop waaw <laughs> domodaa bi naa si ñëw mosi ñu domodaa bu ñuy wax nii naa ñëw mosi ko nu bëggoon nga wax ñu lan nga bëgg gën a bëgg si weeru koor bi atum ren ah, jaama ji am nga jaama dina dee gën a uh, am ñëpp a ngi jaamu yeela uh, yiiw am nga waaw jaama ji daal moom moom daf dee yokku you know nit ñi uh, jaamalante foo duga am nga yaakaar naa ne loolu idea of weeri koor bi sax mooy ne mais bi yeena si yooyu yi nga jàng si weeri koor bi nga yóbbu ko into after weeri koor bi sax sa everyday life Uh, so yu mel noonu daal suñ ko gënoon a mun a yokka si suñ everyday life jaamalante gi waxtaan gi jaamu yàlla gi gën see yokka doole tuuti daal waaw doole tuuti ah, bentee rek ñu bëggoon nga wax ñu uh, weeru koor bi yan impact la def si sa life yow uh, I'm hoping ne def na positive impacts in suma life you know obviously discipline bi Am nga ñaaka lekka bi euh, dina la discipline dina yokk wirgu yaram si yow sa yaram you know and then um, always tamit uh, one thing even though on a normal circumstance we get to do that ma suma family we spend a lot of time together but time is very core na day gën a tax uh, you know time in dogu ñun ñëpp ñu toog ndogu together ma jabar xale yi and everyone you know uh, we spend a little bit more time together daal waaw so nga appreciate yu ndaw yooyu realize na life moom um, li nga liggéey yëpp pour ñooñu la ak pour loolu la so those little times nga mun koo am nga treasure ko waaw sant si yàlla daal yàlla na sant yàgga ñoo xam séeréer yi nuñ mel lekk ah, ah ñu gis loolu ñu bëggoon nga xam yow kan nga mos a tooñ because mun naa am bés ngeen naa lekk sa togg bu neex sax am ku ñëw def naka su dul noonu nga mere ko ci ah kan moo la mos a tooñ ba nga ko baalu si weeru koor bi. waaw ah, koo xam ne man mus naa laa tooñ rek knowingly or unknowingly maa ngi jégalu di la ñaan nga baalal ma aha koo xam ne tamit mos nga maa tooñ. léegi-léegi nag xam nga rek yëfin nit la di nga mer at that particular moment waaye dem den boo demee ba gestuwaat gannaaw uh, koo xam ne man mus nga maa tooñ rek balal naa la aha genuinely from the bottom of my heart because tamit li nga ma tooñee woon ak lu ma wàññi woon yëpp tamit taxut ma dee maa ngi fii ba tey soo santa yàlla waaw léegi-léegi yëfi nit la rek nga mer mere nit ki at that moment waaye uh, soo demee ba seetaat yenn yi rek nga xam ne àdduna amut solo you know soo gëstoo gannaaw nga dégg na xam ne àdduna amut solo du yëfi xaalis du yëfi loolu yëpp xaalis bi dafa jeex you know waaye jaamalante nit ñi xam nga ah, nit nit ay garabam waaw te boo demee ba like I said nga gëstu gannaaw nga dee door di réaliser ne hey ah, balaa ma fi yàlla di jëlee bàyyil ma jéem a tray jaamalante ñëpp am jaamaa ñëpp xam nga euh, dëkkandoor yi am di jaama yi koo xam ne man tooñ naa la rek like I said maa ngi jégalu euh, di la baalu aha yal nga ma baalal te yal nañu yàlla boole baalal ñun ñëpp tamit waaye tamit koo xam ne man mus nga maa tooñ knowingly or unknowingly deeply from the bottom of my heart euh, jégal naa la ko daal déggal naa la ko amiin waaye yal nañu yàlla boole baal euh, ñu gis euh, nit ñi ñu bëri ak nañuy baalu aha amoon na temps bi nga xamante ne dangay weeru koor dafay jot si nga gis nit ñi génn di baaluwante aha léegi mu am style bu es technologie génnee style bu es bi nga xamante ne benn message la ñuy jël rek di ko fowoon nit ñi di wax baalal ma wala ñu jël ko rek tey ko si status bi ku ko xool rek ne noonu la ñuy baaloo aha ñu bëggoon a xam yow noo dee baaloo aha ndax séeréer style bi nga dee jël ndax yow sa ba si boppa nga am waaw euh, mais bi dinaa post social media xam nga jamono tamit diineeg jamono sax dafa am you know jamono moom daf dee affect ah, lu nekka you know so technology tamit allow nañu pour mi bi nga post nit yi nga munut a reach yëpp nga post ah, on social media ñoom ñëpp ñu gis ko ñi nga xam ne tamit ah, di nga dee giseeg ñoom on a normal basis ñi ngi dee jëflanteel nga kool leen baalu aha yu yu yu ndaw yooyu rek waaw so any means boo mën a amee rek yu know waaye pour jaamalante la rek waaw rataxal diggante gi mu gën a rafet ngeen mën a gën a dem kanam daal yee àndandoo nekk benn waaw àndandoo nekk benn dëkk bi jëm kanam ah bante ñu gisee eh, ram eh, weeru koor bi dafay am ñenn ñi nga xamante ne ñoom weeru koor daf leen ay jox yaram dañuy ponkal xam ma lu ñu dee lekk xam ma nu mu fay demee am ñenn ñi moom comme suma maas yi da ngay wàcc rek di wàcc rek ñu bëggoon a xam yow weeru koor lu muy def si yow. Ah, I'm hoping ne lose naa weight. I'm hoping I'm hoping naa gëj naa uh, wee suma boppa waaye discipline bi daal waaw na ma di gën a yokk uh, tuuti discipline li ka seet am nga uh, ñàkk a lekka bi and not only loolu but ngay continuer sa everyday life tamit am nga. pour euh, waaw gën a yokk discipline bi daal boobu moom definitely xam nga gën a spend time with your loved ones euh, am na yenn yoo xam ne maybe yoo daan def yoo toog nga reflectaat on sa life ne ah lele day mun naa wàññi lii waaye mun naa yokk lele suma life you know waaw yu mel noonu xam nga ñu ngi jëm mag tamit fi mu nekk gis nga ne sikim si yëpp mu ngi door di weex sax waaw yeah waaw ah, benn tey rek ah, ñu nga nekk yow moom ni nga ko waxee danga am jabar am njaboot ñu bëggoon nga wax ñu weeri koor ak life boobu noonu am jabar ak doom nu fa demee. waaw ah, that's the time I even get to spend more time with suma family xam nga. because maybe sudut weeri koor maa ngi liggéey yéena yi dama dee liggéey beeg. Haji Gudi balamaan ma ñibsi si xam nga wéri koor mom fokk mu am benn time boo xam ne yéen ñëpp di ngeen war a ñibbi kër ngeen toog together ndogu rare talk, waxtaan jaamalante xale yi dem study tuuti nga dimbale gars you know so uh, maybe du may génn as much xam nga uh, waaw because léegi léegi suma liggéey tamit taf ma dee waral ma war a génn guddi xam nga unlike this time yéena si génn yooyu amatut So in our talk, spend more time Aksuma family, you know, and uh, friends and the loved ones. Yeah. So Bobutamit, you get to treasure those am moments like those you know doo ko realize sax ah, am those little moments nga realize ne whoa, I was missing out a lot you know so gina a dëgëral family dal, yeah. MashaAllah, ni ñu bëggoon a xam nga ko. <laughs> ñi nga war a jox xam nga di leen jox tey rek suma benn waay ak ma kool sax xam nga mu ne ma ah gisaaguma la ba tey di weeri koor baa ngee jeesi xanaa kon léegi mbubi julli bi la nag xam nga waaw soo kooku moom naa dem ah, jox ko mbubi juleem bu soobee yàlla suma suma waaju baax la. loo dee joxe sukuri ko ndax xam naa lekk moom fayen du ko joxe sukuri ko war yow looy joxe. non non lekk moom lekk lekk ñun ñun ñun ñun ñun ñun lekk moom sonaluñu. waaw lekka sonaluñu waaw anything loo xam ne rek ah, di nit ñi dinañ ko appreciate ki nga koo jox am nga tamit ku nekk ak li nga jox ak lim soxla xam nga léegi-léegi tamit fiil naa ne dañ dee joxe yoo xam ne not necessarily ne sax yokka na nit ki nit ki am nga waaye seetal ki ngaa jox tamit sa yéena si sa kilifa yi lu ndaw loo am rek as a sign of appreciation xam nga jox ñooñu euh, ñeneen ñu néew doole noo leen mun a dimbalee yow yaa xam tamit xam nga boobu I don't think in my opinion du ma mun a pressure kenn ne ko lii nga war a jox yow yaay seet ñi nga fiil ne ñooñu nga war a jox ak ñi nga mun a jox waaw di nga am léegi-léegi sax sa ñeena ñoo xam ne ñoo loo ëppale waaye sa kilifa lañ liñ la mus a defal si àdduna nga feel obligated ne waaw kii war naa koo jox not because of ne moo ma ëppale sax waaye sign of appreciation pour won ko ne rek ah li nga ma defaloon fàttewu ma ko am ñeneen ñoo xam ne you know néew nañ doole nga dimbale leen because of ne loolu yow yaa leen tane waaw pour mun leen a dimbalee lu ndaw li la yàlla dénka xam nga waaw am sa yéen a nawle naataango yoo xam ne tamit waaw exchange little gifts rek waaw gis na ñu ngi si last ten days si weeri koor bi ñu xam weeri koor bi atum ren nag xal naa ne tuuti nu ko séeréer yi de waaye tane séeréer la tane ñu bëggoon a xam rek yow ñaata days nga or si weeri koor mbaa mbaa jotuloo bàyyi benn sax gis nga suma xale yi sax suma taaw bi benn fan la bàyyi xam nga man suma waree ñàkk a or de gàcce googu non gàcce googu mënuma dunda gàcce googu koos koor moom ah, discipline la rek nga gën a discipline sa bopp and also for health reasons waaw def ko pour clean sa digestive system bi tamit so du lu ma mun a ñàkk def du jos ne toppa lekka bi rek toppa ah, bànneexi bakken bi rek waaw bul bul toppa bakken si coobareem rek ba mu la lor tamit waaw ñoo dégg fayee nii de ana gars yi ana juufee nii dégg ngeen fayee nii lu ñu wax ah, ah ñu gisoon su dee bàyyi nga xel da nga dee toppatoo Gambian Talents di nga gis ne amoon na lu Mister Diouf defoon muy dis chronique euh, récitation challenge bu mu defoon si diggante artistes yi ñu bëggoon nga wax ñu yow sa gis-gis si loolu. waaw euh, gis naa ne tamit am na ñeena seen reaction to it was not positive euh, waaw mën nag duma mun a judge ne artiste bi li tax mu def ko. def na ko I think ne if you ask me ñoom yu bari éene bu rafet lañ si amoon waaw mais bi ñeneen ñi niñ ko gisee tamit ah, maybe it's not pour man ma particularly def ko man du ma uh, ko doon necessarily def because fiilu ma ne war naa koo def pour won ko keneen on social media maa ngi koo def suma diggante yàlla la waaye tamit fiil naa ne artistes yu bari dañ ko defoon pour éene bu rafet challenge la woon rek mais bi ni ko general public bi gisee la rek waaye yéene bu rafet la si gars yi amoon I don't see anything wrong with it like I said not seeing anything wrong with it miinu de man dama koo def boo xam du pour man pour ma def ko bot su ko keneen defee tamit duma ko mun a condemn waaw euh, kooku diggante ma yàlla te like I said yéene bu rafet la si am so yeah so ban tey rek ñu nekk si weeru koor mbaa ngi nu nga daan demee normal ak aada si di liggéey ak ñoom ban tey mu dem wala yeneen da ngay ñëw studio ak ñoom sa ne in def leen man tey dama soona mbaa di di wàññi non non non non ah, mostly sax mostly sax liggéey bi gudilade guddi la dee nekk after ndogu waaye tey because ah, dañ amoon ay gan yu ñëw te doo mun wax gan yi ñu ñëw guddi schedule time bi mo appropriate on pour gars yi ñew moo tax sax euh, ñu ñew si bëcëk bi am nga way most of the job yep after ndogu la dee nekk fekk you know amaat nga doole tuuti ñu ñew dajé fi rek xam nga def liggéey bi ñoo def waaw ku nekk doxaat macha allah ñu bëggoon bala ñoo ënd nga wax lan mooy sa mujjanteeli kàddu si askan bi lay seet waaw di ñaanal ñëpp euh, di once again baalu aha ñëpp te koham xam ne tamit man yaakaaruma sax ne askan gi war nañ maa mun a baalu aaxa because aha ne ko fa waaye su dee ne man tamit tooñ anyone rek maa ngi jégalu di baalu aha di ñaan tamit yàlla baalal ñu ñun ñëpp aaxa you know ñaan jama diggante gi you know liggéeyal réew mi seet nu ñoo jàppalante réew mi dem kanam you know luñ mun a def rek waaw gën a yokk doole rek waaw sun doomi réew yi nekk bitim réew tamit di leen ñaanal yal leen yàlla yokkal jaama foofu xam nañ ne bitim réew neexut you know yéene giñ am pour seen njaboot ak pour seen boppa ak pour réew mi yal na ko yàlla mutal ba lu raw sax gars yi seen yéene you yàlla indiwaat leen fii ak jaama daal di leen ñaanal di ñaanal askan gi yëpp tamit ah, di leen wax jërëjëf Gambia Talents waaw